mercredi, Al-Khamis, Al-Arba. Niveau Kodor, Ganaoussouba, mercredi. À partir de 20h, Sénégalais Bouné, Nangadjel Saberne Casserole, Wala Sandab Goyor, Tahaou sa balcon, Wala sa Buntuker, Wala Fomounanek, Nugel 5 minutes, Wala 10 minutes, 20h, 20h10, Fait petit Dakar... fépp ci Sénégal bëgg nañu sénégalais bo xamné ne àndoog Macky Sall ni mu yoré réew mi pour mom mu jot message bi na nga génn sa balcon wala taxaw sa terrasse wala taxaw sa buntu kër nga jël sa say ndam daal koy door ñu tegg ko li ñuy wax concert ba aduna yépp dégg ko. Terima kasih telah menonton! amoureux de Jésus. Unis sont la fête et Songo songo lepp moko wax ga yengal len fi. They said body. Guayda, yang galan dai piu ayo, yang yang barang ke? Songko yang ngeri yang gal, songko. Woo, kampis angin touch boy. Woo, songko, songko, lep mau kau, kau yang galan piu. I bari. Boy, jauh yang galan dah piu ayo, yang yang bar Songko Sonko dina ngeen yëngal Sonko. dégg ko xam nga loolu yang bener. te kenn mënu koo te message mënu koo gën a Kep képp koo ne yor auto, wara yor moto Konser de klakson moyu. vingt heures ba vingt heures dix na yëngal zéro ba Sonko la ñu def loo rek. ñu dolli ñëpp mooy campus Sonko li mu waxoon Ngaye ngay même côté en passant ñuy def ndax presse même presse internationale bi da koy couvrir ñëpp di ko dégg kon lii lañu bëggoon wax ma tënk ko rapidement ci tubaab waaw ñuy wax nag ni ñoom yóbbu nañu fi ne nii ñu ñu jàpp leader yi surtout yóbbu nañ leen. ne dañ leen defeere ñoo ngi dànkaafu Macky sal na bàyyi ñi mu jàpp moo ëpp jàmm ci réew mi moo mag ñi mu àndal nag parce que fitna bi ñu bëgg a teg ci réew mi seen bopp lay këpp ndax injustice dama koo yàgg a wax amul lu gën a métti ci àdduna injustice li ma wax ñëpp xam nañ ku ñu tooñ mu leer na dañ laa tooñ amul lu ko gën a métti ba pare tooñ a tey ndax ku la tooñ teyu ko ne la baal ma garawul mais tooñ ci maa tey te dëkk ci nag loolu mooy andi ñu dem ba nit ñi organiser wu damaa yàgg a wax le droit à la résistance constitution moo ko wax buñ la bëggee faagaar loolu ñu bëgg la jaay doole am nga sañ-sañu défendre sa bopp ku toog naan waaw ñoom ñooy def fitna nañu xoolaat wax ji est-ce que ñun dañoo mus a jóg dem songi nit wala dem dóor nit musul am kon na bàyyi ñoom Déthié Fall ak ñoom Ahmed Aydara ak ñoom bii mari saaña ak ñoom Cheikh Abdou Bara Dolly su dee bëgg na jàmm am ci réew mi parce que du yombee noonu de te nag am na fu ma d'accordul ak doyen Habib Sy dafa baax rek de loolu mënul am fii ci réew mi ñii nekk ci li ñu nekk nii jël alal réew mi toxal ko ku wax ñu duma la ku wax ñu tëj la di def loo xam ne mooy taal fitna ba bakkan di ci rot kenn ku ne li ngi ci def bés dina ñew di ngi ko layoog yoon par Macky Sall a commencé par Macky Sall lolu mom mënul mën amul sax parce que dañ nan na ngeen ko rassurer comme ça xelam dal mu dem xelam warul dal la lan la def ba xelam ñak dal mom dafa am immunité xam nga président bu am immunité pour nga juger ko du lu jafé de haute trahison rek ko mëna juger est-ce qu'il a trahi buñ ci tollé dinañu xam waaye ñi mu àndal ci ay ministre ñi nekk ci administration bi ay DG ak fu kenn xamul di def seen i njombe ñi ne ci justice bi di def lu dul yoon ba muy taal réew mi bàyyi bakkan di ci rot buñ ci tollee dinañu càmbar bu dee li defoon du yoon dañuy dem jàkkaar jàkkaarloog yoon ñu àtte leen loolu moom dafay leer de duñ fi nekk di ko di ko layam-layame ils vont rendre compte de leur gestion euh, je vais